merci beaucoup Aïcha man dama waroon am ko débatteur maa xamul lu tax euh, ñëwul. Ah, te moom te moom loolu noonu doon na ko intéressé parce que je pense que enseignant la. dafa am urgence au ah, dafa daw. ah dafa daw plateau bi. xamoon na ne man maay ñëw. dafa daw xamante nañ dañu daje ci plateau. bërka bu yàggul ça fait même pas une semaine daje nañ DTV dafa daw. dafa am dañu amul argument dañu nekk ci diabolisation dañu nekk ci ay ay sos dañu nekk ci intoxication amatuñ luñu wax askan bi du leneen xam ne ne maay ñëw mu daw. mais yaakaar ba nga xam nañu maa ñëw. parce dama toog ak moom. non franchement quoi. ma ñëwul tamit bàyyi bàyyi ko xam naa ko dama ko xam lu tax mu daw pour pourquoi mu ñëwul. pourquoi kaamu annoncé ne day ñëw sénégalais yi. askan bi mais ma rek ma ñëw askan kon man dinaa justifier dinaa ñëw dinaa. c'est-à-dire dama ne dafa dafa daw loo dafa daw xam naa ko bu baax. on s'est appelé même hier dafa daw. loolu leen bi ngeen. dafa daw parce que dafay avancé yoo xamante nii leeroon na ko ne bu ma ñëwee dinaa ko leeral naka la mën a taxawee ci plateau télévision naan askanu Guet Ndar nee nañ dañuy dem ci dañ ko yóbbante ci Ousmane Sonko dañu wax ne ñoom pare nañ pour résistance c'est pas vrai man ma woote foofa noonu parce que Guet Ndar nag dama fa bokk man aussi su ma soxnaa nga fa sama doom a nga fa sama doom bu góor bu ma tuddee président Macky ma nga biir Guet Ndar c'est askan bu toll noonu nga waxal leen lu mel noonu ci plateau télévision xamoon na ne bu ñëwee fii ma démonté li muy wax. moo tax mu daw.